waaw euh, ñuy wax nag si li nga xamante ni mooy feebar bi ñuy dégg muy coronavirus di nekk loo xamante ni lu am la te day rey te li ñuy wax fagaru moo gën faggu si loolu nag moo tax ñun tam ñu jug pour sensibiliser nit ñi surtout yaay yi surtout ñun jigéen ñi parce que lépp si ñun lay lay lay baaxee di wax yaay yëpp ñu jug fagaru surtout ak si xale yi fagaru ci kër gi xale yi dañuy dem kenn mënu leen a mais xale bu dugg si balaa muy lekk nañu jël li nga xamante ni moom moo war raxas seen loxo yi ak saabu ak eau de ba nga xamante ni loolu yàlla dinañu si muccal waaw ñun waa URPAS nag ñun lii mooy suñu bit pour lu xew ñun loolu mooy suñu mbir lu xew rek dañuy jug pour sensibiliser nit ñi ñu ngi am nag suñu ñaari nit ñoo xamante ne ñu ngi leen téye ci prison bi surtout tamit ñu ngi lancé président Macky Sall ñu ngi koy ñaan ñooñu nga xamante ni ay membre de famille lañu nekkoon ñoo xam ñu li ngi ñu ngi représenté lu bëri si li nga xamante ne mooy URPAS URPAS comme ni ko sama kii naataango bi waxee rek bël bii li fi daan dee kenn xamu ko bu ñu commencé sensibiliser lu bëri wàññeeku na te ñi nga xamante ni ñooy mool yi di jiite mool yi ñu ngi nekk si membre URPAS kon lu bëri loo xamante ni amoon na langue de bari ñu ngi koy dindi nit nag bu jógee di sensibiliser di defar dëkkam dañu war taxaw pour jàppale ko ki ñu fa tëj kenn ki di Macoumba Dieye suñu président la Maka Dieye porte parole la boo xamante ni lu xew moom moo daan wax ñooñu ñu téye daal wax dëgg yàlla bu doon suñu sagoo ñu bàyyi leen parce que ay père de famille lañu ñoo xamante ne ay père de famille lañu tey ñu ngi toog téye seen ay ñuy dundee loolu war nañ ci bàyyi xel te président Macky Sall ñun demandé wuñu ko emploi ñu Langue de Barbarie demandé wuñu ko benn emploi ñun ñooy liggéey def suñu bopp te mënoon nañu nekk di kaas comme ñeneen ñi toujours ñu jug naa liggéey la ñu bëgg liggéey la ñu bëgg lu ñu ko teggil dafa bëre mu bàyyi xel ci loolu ñun li ñu ñaan rek mooy mu dimbale ñu génne suñu naatangoo yooyu foofu ñu nekk waa kër yi moom set gi moom war nañ ko mën a yokk bu baax a baax jigéen ñi set gi ci togg yi set gi ci néeg yi set gi ci xale yi loolu lañ ñu ngi koy ñaan jigéen ñi duusi bu ñu xëyee ñu raxas ba mu set bu ñu xëyee kër yi ñu raxas ba mu set loolu moo ñu mën a dimbale eau de javel ah ñu prévenir gel xale yi comme dañuy génn balaa ñuy dem ñu la alal leen seen loxo dimbalee leen si loolu daal gën yokk set gi daal loolu rek la ñaan comme moo ñuy dimbali ci feebar bi ñu ngi ñaan ñu gën a yokk set gi ñun jigéen ñi. lii am ni Sénégal am si adduna bi yëpp ba ak Sénégal moo waral ñun waa UNAPAS ñu jóg pour sensibiliser maanaam secteur bi nekk muy wàllu pêche sensibiliser mool yi pour nu fagaru daal comme olof daf ni fagaru moo gën faju waaw nu fagaru si jàngoro bi nga xam te ni maanaam dugg na Sénégal te ñun INAFAS kuréel nañ boo xam te ni si yooyu noonu nan taxay dépp bu ñu juddoo ba léegi waaw ku gis bël bi li fi daan desi nit bi INAFAS juddoog léegi wàññeeku na te lu ko waral maanaam sensibiliser bi ñuy sensibiliser mool yi di wax ak ñoom di fekkee météo dafa sànni ay alerte waaw comme gannaaw bël bi li nekk danger la jàngoro ji nekk danger kon ñun ñu wax si bël bi rek comme jàngoro ji day rey maanaam nu wax ak suñu mbokk mool yi ñun maanaam sensibiliser leen du ko defee nu mën a moytu bu baax baax waaw bu ñuy dem géej raxasu yobale o de javel ak yëpp yo xamanteni manam day jox nit wér waaw nu comme ni ko ñëpp di defee dal waaw comme ni ko Sénégal yëpp di defee gannaaw lool tamit manam nuy ñaan suñu président ki nga xamanteni moy père de la nation monsieur Macky Sall moy suñu njit nu koy ñaan comme suñu président yi nga xamanteni suñu président bi nga xamanteni dañ ko téya muy président Macky Dieye ak suñu porte parole El Hadj Yem Dieye maanaam nu bàyyi leen parce que liñ leen téya manam defuñu si waxuñu si dañ leen tuumaal takal leen tej leen tay noy bëgg a ci si koso bi tay ñom ñëpp manam ay homme de développement nonu manam dañ daan jëriñ seen mbokk dañ daan jëriñ seen bop dañ daan jëriñ seen askan tay fenn leen tayane manam yàqu yàqu-yàqu rek la mën jur mais du indi du indi benn defar ci dëkk bi waaw mo waral nuy ñaan suñu président président Macky Sall manam si katan bi ga yalla jox suñu président ak suñu porte-parole El Hadji manam nu bayi bàyyi leen sinu mo gëna gaay no ngay daangan ci ñom di nga jaaral nak ki nga xamanteni ni sinu jëw moy moy moy moy moy maire dëkk bi man di jaraafu dëkk bi monsieur manjour fay li ni war na ko yomba trop parce que wax dëgg yalla am nañ yaagar ci moom te it gis nañ manam jëgëna na président Macky Sall waaw no ngay ñaan tamit mu taxaw ci suñu mbokk yi ni nu bàyyi leen parce que pass ci li lay dox kenn ku nekk manam xam nga ni bël bi li fi daan desi nit dépassé na te ba léegi defaragun ko mais pass mi ngi sensibiliser mool it maanaam du alerte amé mu taxaw ni leen bu leen dem géej te it capitaine capitaine gaal yëpp na ngi si biir Unapass waaw te it mooy kuréel gi nga xam te ni moom la mool yi di gën a déglu waaw te it liggéey yooyu yëpp noo ngi koy liggéey ñun amul lenn loo xam te ni day indi yàq-yàq si dëkk wala muy indi ngi si askan ñun Unapass ñu nekk si ñun toujours si luy defar si loolu nekk si loolu nekk kon noo ngi ñaan nag suñu président maanaam mu taxaw ci loolu noonu te it suñu mbokk mool yëpp ñu leen di maanaam jàngoro jii nii nu fawaru bu baax baax a baax parce que kenn ku nekk gis nga ni li def si adduna bi ñaanu yàlla nag mu mel noonu Sénégal kon nanu fagaru bu baax a képp kuy dem géej nga nga prévoir maanaam wàllu set si lu lu baree bare loo xam ni maanaam daa si mën parce que géej amul bànqaas waaw jàngoro na la tëral léegi si kaw joor ñu yóbbu arrêté teg si yóbbu la bu dee géej tamit doo ko mën yu bare yoo xam te maanaam xam nga pour maanaam jàpp si liggéey bi nga xam te ni suñu président moom la wax ama kenn ku nekk gis nga musiciens yi noo nooy génn leen am maanaam ministre yi nooy génn li nu am ñun tamit lu nu am nu génn si parce que si dëkk bi nañ bokk te it maanaam ñun ay acteur de développement développement nañu acteur de maanaam wàllu pêche bi daal maanaam li muy li muy pose si si commune économie Sénégal kon ñun tamit waroon am lu nu war a def moo tax nu jënd yi nga gis nii yëpp pour yóbbu si prison bi après tamit nu yóbbuwaat dispensaire bu gendar maanaam jox si gaal yi dem géej du ko defee nu mën a fagaru si jàngoro bi